ñoo ngi dalal euh, Macodou Fall moom moo jiite impacté collectif impacté euh, du TER ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Fall. waaw maa lay donc euh, di la jaajëfal bu baax a baax si disponibilité tey ñu waxtaanee mhm. li nga xam ne moom mooy TER bi ak yéen ñi nga xam ne yéen a ci yàqule yéen lañ fa jëlee ngir ñu tabax mhm. ngir ñu amal TER googule ba ñuy waajal inauguré TER bi yéen a ngi doon yéen it waaj ñu bëggoon a xam. lañ leen digoon jamono jooju ak léegi lan lañ ci jot a def. waaw euh, kii euh, maa ngi nuyu ñëpp di masawu euh, impacté terre yi nga xam ne tey jii terre moo jëlee moo jël seen kër yi. Mm-hmm. donc di masawu ñëpp donc di masawu ñëpp parce que vraiment instant bi boo xoolee ñoom ñu ngi dund lu metti la nga xam ne tey jii vraiment dineen masawu rek. Mm-hmm. Euh, di wax ni euh, projet TER ñëpp de développement la. o mhm. dëgg yàlla dafa waroon fekk ay nit fi ñu dëkk mu mu mu suqali leen quoi. Mhm. mais tey jii lu ñu constaté mooy ñi nga xam ne tey jii dañ leen par le projet. Mhm. da ñu ngi rencontré wu ay problèmes yu dul jeex. waaw non seulement instant bi ñoom ñi ngi daw ci. ay primes yu ñu tuddee prime de vulnérabilité mm-hmm. nga xam ni tey jii commencé woon nañ di fay mm-hmm. mais dafa am benn nombre bu important ba nga xam ne tey jii ba léegi kenn fayagu leen mm-hmm. donc mu des la nga xam ne ñu ngi tudd perte de revenu locatif gaa semaine bi passé y a deux commencé woon nañ génne ay chèque quoi foofu xam naa motul sax cent personnes yu ñu génne seen chèque mais aussi euh, tey jii li nga xam ne moo gën a am solo tamit moom mooy seen suuf si nga xam ne tey jii suuf si état bi jox ñu ñu ko sur l'agros muy quarante hectares. Mm-hmm. bo nga xam ne tey jii vraiment dañ ko war a aménager ci moins d'une année ci loom lu ñu waxoon. Mm-hmm. donc o a constaté tey jii aménagement bi am na ay lenteur quoi. Mm-hmm. donc te avant aménagement bi tamit. vraiment waxoon nañ ne nañu établir les titres de propriété nga xam ne tey jii ku nekk dina yor sa kayitu kër nga téye mais ce qu'on a constaté mooy kayitu kër yi ba léegi euh, vraiment nit ñi jotaguñ ko daal. Mm-hmm. jotaguñu seen kayitu kër keroog na j'ai na interpellé euh, gouverneur. Mm-hmm. mais wax nañ ni bind na kadas kadas moo ko war a répondre ñu commencé xam établir loolu mais ba léegi vraiment euh, defaguñ ko. Mm-hmm. te ñëpp xam na ni état sur les procédures administratives et tout état war na mën a am des moyens pour accélérer ces pro ces procédures là. donc vraiment ñun tamit ñu ngi toog di xaar mais amul évolution notoire bu tax ñuy wax ko quoi. kon da nga bëgg ne euh, depuis boobu ba tey lañ ñu diggee woon yëpp defuñu ko léegi euh, nga ne génne nañ ay chèques ndax loolu dafa firndeel ne am nañu wàññeeku ci nombre gi fi nekkoon. ci nombre ba. nombre ñi nga xam ne ñoo impacté woon te joxuñu leen euh, dédommagé wuñu leen. waaw ñoom ci ci ci ci nombre bi nombre bi au contraire day gën di yokk rek. Hmm. day gën di yokk cest à que mooy ni Euh, tey jii boo xoolee euh, euh, nombre ci chèques yi ñuy wax ñoon ñun on parle de chèques de vulnérabilité. Mm-hmm. parce que ci commencement bi dañ ne dañuy fay indemnisation bi mix lay doon quoi li ñu naan dañ lay jox kër jox la jox la xaalis. Mm-hmm. ñun xaalis lañ joxe woon ba pare waxaat la ni da nga war am bénéficier benn chèque bi ñuy tuddee prime de vulnérabilité ak benn chèque bi ñuy tudd prime d' social. Mm-hmm. donc yooyu yëpp c' est des yi nga xam ni vraiment. waroon nañ ko boole ñu fayandoo ko. Mhm. mais il se trouve que à part euh, principal boobu ñu fayal muy indemnisation boobu. Mhm. terrain yi ba léegi nit ñi jotaguñ ci jotaguñu prime de vulnérabilité yi personne personnes ñoo ci jot mais ñu si des des na ak accompagnement social bi moom kenn jotagu ci. donc beneen bi mooy vulnérabilité bi. ñoom mhm. dañu ne dafa am lu ñu koy tànnee. ñi mhm. koy war a bénéficier wu. Mhm. ñan a bénéficier wu ñoom ñe ils c'est les personnes les plus vulnérables par le projet est vulnérable. parce que tamit vulnérabilité yi tey jii les personnes les plus vulnérables ñu ngi leen bàyyi ñoom suñu réunion sax di kaas. ñuy joxe ñeneen donc critères yooyu ñuy jël ñun man pour man c'est des critères yi nga xam ni vraiment du foofu la ñu war a Donc c'est pourquoi on interpelle le, président de la République et le gouverneur, le DG de l'APEX à ce que ñu fay tout le monde pour les en ce qui concerne les primes de vulnérabilité. Mm-hmm. D'ailleurs, nous avaient demandé une liste. Donc on a établi la liste, on a déposé au gouverneur, c'est au gouverneur de transmettre le DG de l'APEX. Mm-hmm. Mais ba léegi des na am na ñu ci commencé woon fay mais si bëri des na. Mm-hmm. ba léegi ñooñu ñu ngi ciy daw mu nekk nii. ma bëggoon a comprendre ah. tey jii bu doon euh, Macodou Fall moo yor këram daal di ma ko man mii euh, tey buñ ñu fay jëlee kër gi di yàqu euh, kan la ñuy fay si ñun ñaar. bu fekkee ni lool la yooy yooyu normalement ci part bi dafa am luñuy tuddee un un plan d'action de réinstallation nga xam ne loolu yëpp bind nañ ko ci tënk nañ ko ci. Mm-hmm. mooy ni tey jii tout locataire. tey jii li nga doon fay le montant de la location dañuy multiplier par six ñu fay la ko hmm. liñ la fay noonu moom lañuy fay borom kër gi hmm. loolu lañ tuddee perte mooy perte de revenu locatif hmm. donc perte de revenu locatif donc ñooñu tamit dañ ko war a bénéficier wu mais on a constaté ces de revenu locatif sax ci semaine bi nañ ko commencé di fay mais nombre bi jigéen na gum amagul solo bu tax ñuy wax quoi parce que mosuñu soixante dix xaw ma soixante et quelque. Mhm. donc dañ ci nañ ci génn génne gum donc des na ñu bëri ñi nga xam ne dañ leen war a fay mais fayeguñ leen. Mhm. vraiment loolu tamit ñu ngi koy xaar ba léegi. ngi ñu ne woon euh, ñaari weer euh, décembre ak léegi def na léegi ñetti weer parce que ñoo ngi ci weeru mars boo xam ne xaaj na boobaak léegi déggu leen tamit euh, ñi nga xam ne ñooy autorités yi ngeen jotoon a waxtaanal balaa ñu teer bi di di di di di door. xam nga ci inauguration TER bi y risque de sabotage vraiment. Mhm. mais c'est nous du collectif ñu ñoo dem ak gouverneur des APEX wax ak ñun. Mhm. ba ñu bu jéegi ñu bàyyi lépp. président à distance tamit wax tamit ñu bàyyi lépp mhm. donc le jour de l'inauguration dégg ngeen président lu wax nee na moom dina jël la question en main dina fexe ba résoudre tous les problèmes yi nga xam ne te jii des na mhm. ba au dernier cas dina ko résoudre mhm. donc nag joxe tamit un délai de deux mois pour résoudre problème boobu donc temps boobu nous étions au vingt euh, vingt sept décembre le vingt sept décembre vingt sept février deux mois la. Mm -hmm. donc deux mois gisuñu mu évolution. Mhm. deux mois amul dara lu ci avancé moo tax le collectif tamit dafa ñëwaat refaire surface pour jëlaat affaire bi on a écrit le président de la république la day kii semaine passée. donc introduire nañ la la la lettre là. Mhm. ba pare donc ñun ñu taxawal pour taxawal suñu plan d'action. Mhm. parce que vraiment autorité yi li nga xam ne tey waxoon nañ ko depuis loolu ba léegi amaguñu évolution bu notoire bu tax ñuy wax quoi. balaa ngaa wax ci euh, plan d'action bi euh, déjà euh, kon yéen dañ leen joxoon benn calmant su ko defee ñu mën a amal seen cérémonie. waaw calmant moom comme ni ñuy wax rek c'est-à-dire que si l'État si nos États pensent que mun nañu ñu nax loolu moom il se trompe loolu mënul nekk c'est pas possible. Mm-hmm. parce que nu tamit nous sommes éveillés nous sommes bien réfléchis. Mm-hmm. donc tey jii bu ñu bu ñu bàyyee rek c'est parce que nous sommes des d'ailleurs le président de la République waxoon na ko keroog loolu de négociation. Mm-hmm. il nous a dit que nous sommes des modèles de citoyens. Mm-hmm. parce que mënoon nañ toj mënoon nañ yàq mënoon nañ def lu ne. mënoon nañ jaxas suñu xeex bi ak politique. xam nga dugal ci ay activistes lu nekk mënoon nañ ko ci def mais on l'a pas fait. ñun dañuy dem cavalier seul. donc on a toujours euh, tijji nañ suñuy porte chaque jour ci ay négociation ci état bu ñu woowee ci dem ci dikk mais toute chose dafa am limite. Mhm. dafa am limite. Mhm. tey jii dañuy wax ni à chaque fois dañuy interpeller l'opinion jël leen en témoin mhm. tey jii li ñu dund calvaire bi ñuy jaar li ñu traversé. ci projet bi mënuñu la ko wax. donc il y avait des désagréments à ne pas finir. Mm-hmm. yi nga ne ñun ñëpp ñoo ensemble. Mm-hmm. donc mais toujours ñi nga am retenu mais tey ji bés bu ñu fi explosé bu mu leen bett tey ji ñu explosé fii te bu boobaa ñoom leur responsabilité day engagé wu parce que tamit fa ñu war a wax la ñu war a wax la ñu war a bind la ñu war a def lépp def nañ ko. Mm-hmm. donc c' est à l' de tey ji jéem a xool naka lay résoudre ces problèmes la mm-hmm. parce que tey ji ñu mënuñu concevoir tey ji état du Sénégal. di di jël ay engagement yu mu dul respecté mhm. loolu daf ko war a bàyyi muy un deuxièmement le projet BRT ngi fi jaar fii gis ngeen amul benn problème mhm. donc nous y de cela dix ans quinze ans y avait l'autoroute à fii jaar fi gis na seen site de réinstallation bi nu mu nekkee woon tout ça mhm. mais pourquoi pas ñu di teer ñu continuer ba léegi tey ji may waxe yow nii non seulement tegatuñu autant dañ doon def benn comité de suivi ba nga xam ne ils nous con ils nous ils nous dans leur ils nous convoquaient même dans leur réunion mais léegi flex boo xoolee defatuñu lu mel noonu. Mm-hmm. donc vraiment loolu dafa war a dañ te loolu yëpp luñ ci interpellé mooy président la république parce que il nous a reçu fois, à chaque fois, ils nous disent que si vous avez des problèmes, revenez me voir. Mhm. Donc loolu c'est le discours président loolu la ñu doon wax. kàddu président nag dafa war a am. voilà dafa war a voilà. Mm -hmm. c'est ça. boobaak léegi euh, ñi impacté euh, du terre euh, ci yan jafe-jafe yi wala ci yan anam la ñuy dund. dund yu métti rek. Mhm. ma ma jaale fii jaale suñu benn jigéen day jug. wax dëgg yàlla ku ku ku brave ku ku ku xam ni dafa engagement wallahi azim. Mm. te ñun ñëpp la bett. ñëpp la bett. Mm-hmm. da doon toog wax bay jooy suñu réunion yi wallahi azim yàlla semaine passée. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla ak njabootam ak yëpp ay famille yëpp ñu ngi leen di jaale parce que femme bi c'est une femme taxaw doon laaj prime de vulnérabilité jotu Mm-hmm. xam nga sonn na famille am sonn nañ ñun ñëpp sonn nañ xam nga ba léegi ba du mu génnee àdduna loolu. Mm-hmm. ji dafa daw ba ba ba ba daanu loolu lañ ko mën parce que temps yële passé waxoon nañ leen ni ñun parce que bàyyi dañ doon génn àdduna benn par benn. Mm-hmm. te dara defu leen lu dul naqaru xol. donc tuxu nañ xamatuñu fu ñuy dëkk amatuñu repère amatuñu dara donc état bi kon leen di leen dawloo loolu c'est triste pour le Sénégal. Mhm. c'est triste pour nos autorités. waaye di dee par benn benn nga wóor ne kenn ku génn àdduna rek problème héritage bi taxaw na yeneen problème lay juraat donc ces genre de procès la ñoom dañu war a def avant ñuy tout fexe lu tout. Mhm. pour accélérer les procédures régler lépp bu mu féetee côté. instant bi nit ñi même bu fekkee ne ñu ngi yegg ci terre xamal ne des gens on laissé leur vie pour faire passer le terre la donc il faut que qu'ils sachent ça il faut que ñu xamee ko noonu. parce que ces gens là tey jii ñoo sonn ils sont ñu la koy masawu bu baax a baax euh, di laajte rek plan d'action bi nga xam ne junj nga ko fi sànq ndax dafa am date bu ngeen jàpp pour amal ko. waaw plan d'action bi moom vraiment c'est jàpp nañ ñun date ba nga xam doo jàpp gu ñu hmm. mais ñi ngi dem semaine bi di ñëw samedi rek dinañ réunion jéem a xool naka nañ koy planifier parce que gars yi chaque jour gis nañ ñi nekk suñu ginnaaw jeunes yi fi nekk ak ñoom action rek dañuy xaar. Mhm. am na ñi xam ne rek la bëgg chaque jour ñun ñi nga xam ne ñoo nekkee ci kaw ñoo leen di téye di leen dàmp di wax di wax mais toute chose nag dafa am limite. Mhm. dafa am limite limite bi mooy lan dama ne dans les jours à venir si tey jii suñu évolution. li mhm. nga xam ne mooy kii bi nous avons voya nous allons voyager à bord des terres. pour lan te duñ ciy voyager. dina wuteeg voyage yi dem di ma on va appeler tous les chefs de famille leurs enfants et tout le ñu monté ci TER de Dakar à Rufisque def ci biir nag duñ ko wax kenn duñ ko def waale. kon da ngeen a wax ne seen ah. manifestation foofu ngeen koy defee. dama ne incha allah bu neexee yàlla bés bu ñu enclenché loolu dina am ay conséquences la nga xam ni l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que ñoom ñoo indi loolu yëpp te avertir nañ leen loolu moom tonton àll diis. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Macodou Fall. Euh, ngay euh, président